ko wàllu environnement ñu am ambition nekk une commune verte une commune propre une commune sûre d'ici 2030 loolu ñu am benn campagne de reboisement bu am solo boo xam ne bi tàmbali nañ ko ci suñu axe yi waaye terewul ñu bëgg intervenir au niveau des écoles élémentaires ba nga xam ne xale yi dañuy dañuy dugal ci seen i ci seen i pratique maanaam ñu bëgg garab bëgg environnement bëgg lu set donc loolu ñu bëgg cee travailler ak les 47 écoles yi nga xam ne Malicounda am na ko donc loolu yëpp nekk ay programmes yoo xam ne daal am nañ ko pour suñu commune voilà muy commune boo xam ne bii ñoo ngi fekk budget bi ci moins de 400 millions tey dépassé nañ 1 milliard de francs CFA ñu am ambition créer une zone industrielle sur 200 hectares yoo xam ne yi am nañu l'assiette donc ñoo ngi ci aménagement bi ak yooyu donc nekk une commune tamit touristique waaw boo xam ne bii président Macky Sall ñu koy jaajëfal def na benn station balnéaire muy Pointe Sarène mu ubbi premier hôtel am bu mag muy Riu te ñu am ambition accompagner ko ci ba nga xam ne daal vraiment bëgg nañ daal Malicounda d'ici 2030 2035 mu génn ci loo bi nekk benn commune euh, modèle déjà nekk na ko mais mu gën ko affirmer bañ wan ne bañ wane ne le développement local. Sénégal mën na développé wu à partir de nos terroirs. d'accord xoolal seen nga baal ma rek foofu bu fekkee Malicounda la concerné dinañ ci ñëwaat xam naa. après juste bu ñu paree mm-hmm. jamono yi la ñu génn dañoo amoon benn élément Médinatoul Salam ñu ne problème bu ndox la ñu am ba duutoon nañ la si baaraam. waaw waaw xam nga Médinatoul Salam la fa xewoo mm-hmm. daanaka kenn xamul lan la parce que SONES moo fa euh, bënn benn teen bu mag benn benn forage. Mm-hmm. Euh, ñuy amoon yaakaar ne SONES dafa war a alimenter Médina Ndoundou Salam avant muy yóbbu ndox mi feneen SONES ñëw ne day def tuyau bu mag yóbbu ko Mbour loolu mooy indi coow li mais euh, initiative bu SONES def fa forage ci ñun la jógee ndax ñun ñoo délibéré espace bi jox ko ko def démarche yi auprès du DG de la SONES mais ñoom bi ñëwee di def si tuyau pour génne ko yóbbu ko Mbour yéegaluñu ko dañoo toog rek dégg na koy def man mii maa njëkk a dem foofu bind lettre au ministre de bind lettre ministre euh, DG SONES ne leen forage bi bañ leen koy jox assiette bi c'était pour ngeen jox ndox Médinatoul Salam d'abord avant muy dem feneen donc ma dama am surprise tey kenn tàgguwoo ma ma gis ne ñoo ngi jël ndox mi di ko yóbbu feneen. Hmm. donc ma bëggoon nag nu ma gën a gaawee ñu corriger loolu. donc ñëwoon ci démarche yooyu. donc population yi tamit woo nañ leen wax leen ko donc on n'a pas compris lu tax ñu tëb di wax di wax lale hmm. mais loolu yëpp ñoo ngi ci waxtaan nañ ci ba am ci juboo ak waa SONES. Hmm. ak waa Aquatech ba tax na ndox mi tàmbali na ñëw te incha allah ñu def réseau. pour que Médinatoul Salam yëpp am ndox. d'accord ikaat gannaaw émeute yi nga xam ne moom moo fa amoon ci euh, weerub euh, juin fi mu ne jamono ji ndongo yi lu ñu bëgg mooy dooraat euh, njàng mi yéen jàpp ngeen ni loolu mënul nekk conseil d'administration bu COUD récemment daje nañu wax ay mesures yoo xam ne bëgg nañ ko jël pour peut-être ñu étudiants yi mën a dooraat yi nga xam mooy njàng fan ngeen toll ci mesures yooyu exact waaw peut-être balaa may dugg ci mhm. biir sax damay wax saluwaat effort yi nga xam ne président Macky Sall def na ko ci université Cheikh Anta mhm. ko ci campus social ci capacité d'accueil juróomi junniy lal 5000 lits président tabax ay pavillons yu bees ba tey capacité d'accueil bi doublé wu dem ci 11000 lits mu amaat yeneen projet yu nekk en cours yoo xam ne am na nañoo réceptionné ci ouverture bi 800 lits mais projet yooyu avec la société Amsaadi Yelti lañ ko war a def dina porté capacité d'accueil bi à 18000 lits ñu fekkoon fa bu fekkoon fa benn service commerce service euh, médical bu ndaw boo xam ne bii bu grève masaan am rek. day déborder ba élèves yi daan gaa étudiants yi daan am blessure dañ leen daan teg ci suuf mu tabaxal ñu hôpital hôpital bu mel ni bu Kaffrine boo xam ne bii daanaka capacité d'accueil bi R plus 3 la immeuble bu doy xam ne bii euh, euh, hôpital la daan teg service am yu bari bi ñu koy délocaliser foofu lañ ko indi. donc loolu ay effort yu bari bokkul nag ak accompagnement bi nga xam ne président defal na ma ko man. ba li man man université yëpp ci wàllu transformation ñu def ko donc loolu nag bu amee ba pare benn journée ñëw daanaka mel ni lu yàq lépp muy premier juin. ñu taal ay amphithéâtre taal université taal ay bis bisu étudiants yi taal bisu travailleurs yi yàq fa yàq bu mësul am dans l'histoire du Sénégal donc loolu balaa ñuy delluwaat ci classe yi dafa laaj ñu càmbaraat ko balaa delluwaat ci ci ci campus bi dafa laaj ñu xool nan lañ cay delloo euh, dellu bi gàllankoor yi ñu bari ñoo ngi naan lu tax lu tax defaraatoo leen université nangam mais defar defar bi sax nekkul gàllankoor bi parce que defar moo gën a yomb ay euh, lu ñu taal ak yooyu pour trouver ay bureau de remplacement yooyu quand ñoo ngi ci te tey jii peut-être travaux yi mën nañoo jàpp ne mi ngi ci entre 70 à 80 pour cent de réalisation bâtiment yi defaraat ko mooy li gën a yomb mais li jafe te ñu war cee bàyyi xel mooy fexe ba la amoon bajatee am waaw xam nga faj fagaru dafa gën faj hmm. loolu moo tax ñu ne balaa ñuy tijjiwaat dinañ jël dañoo bëgg conseil d'administration bi ne directeur COUD dañoo bëgg nga jël ay mesures yu mat ci wàllu sécurité ci wàllu accès ci wàllu hébergement pour que université la fa xewoon dajatee xew dañoo bëgg système sécuritaire bi nekk système sécuritaire bu mën a jàkkaarloo ak ay musiba yu mel yi fi amoon dañoo bëgg tamit ñi nga xam ne ñoo ngi dëkk université di nekkatuñu ay étudiants c'est vrai que année yi passé am na effort yu bari yu ñu ci def mais système bi ñu mettre en place dafa am ay limites dafa am ay failles dañoo bëgg failles yooyu ngeen corriger ko ba ku nekkul étudiant dootul nekk ci enceinte université bi bëgg tamit vraiment euh, les règles d'émergement ba nga xam ne benn chambre bu six personnes waroon a nekk quinze personnes di ci nekk surpeuplement boobu nga xam ne c'est à l'origine de la promiscuité mën a nekk à l'origine de de tous les maux yooyu tamit ngeen combattre ko donc loolu loolu mooy li nga xam ne loolu la conseil d'administration teg ne mhm. balaa ñuy tijjuwaat dañoo bëgg ngeen jël mesure yooyu mais ça DG yeneen ko def euh, gannaaw bu la nuyoo euh, si seen waxtaan bu le 20 octobre bi passé bi ñu tëjee université ak léegi ak xew-xew yi amoon est-ce que am leen woon temps wu yi ngeen waxtaanee nii ngeen waxtaanoon ko ci lee période mën see trouver solution ba bu ñu nee ubbi jàng jot na ngeen mën a ubbi comme tout le waa xam nga loolu effectivement c'est une question pertinente bu ñu war a poser mais damay jël par étape travaux yi déjà mën nañoo wax sànq wax naa ne réaliser nañ soixante-dix à quatre-vingts pour cent des travaux lan moo tax defuñu cent pour cent depuis lors xam nga ay événements yu grave yu mel noonu bu amee balaa ngay def dara dafa am ay structures état yu habilité pour càmbar joxe seen avis. ñoo leen yéexal de finalement ñoo leen yéexal de. voilà muy direction de la protection civile. Hmm. ñoom lañ bind lettre. premier juin le avant le 10 juin man bind naa lettre direction de la protection civile ne leen yàqu-yàqu yi ci université toll na noo xam ne nii lakk yi affecté batiment bâtiment yi noo xam ne ñun en tant que profane mënuñu mënuñu jëf dara ci université yi te amuñ seen avis. Hmm. direction protection civile lépp loo xalaat ci service technique état rek commission régionale boobu ma nga jàpp gouverneur préfet mairie. urbanisme pompier ñëpp. ñu def ay mission yu bari ci université ba déposer seen rapport rapport boobu ñu ko jot le premier septembre. donc premier septembre ak léegi bañ ko jotee rek lañ tàmbalee di dafay di bien que amuñu budget bi ah, a xam ne mën nañ koo def ñu def ko. li nga xam ne dafa laaj un budget nag parce que experts yi ba ñu évaluer yàqu yi nga xam ne campus social rek la nekk toll na ci un milliard huit cent donc un milliard huit cent boobu état bi bind nañ pour que état bi mais dañu anticiper ba nga xam ne lépp li nga xam ne mën nañ koo def ak suñu budget day aménagé ñu day aménagé suñu budget ba liggéey ko mais loolu donc pour ci wàllu yi loolu bokk na ci li nga xam ne moom lañ doon xaar pour agir mu waral mu yeex nii ci wàllu jàngale bi xam nga conseil académique nga xam ne kudd da cee bokk professeurs yi bokk ci faculté yi bokk ci ñoom ñoo ne woon nañu continuer enseignement yi en ligne mhm. donc ñun ci suñu entendement dañoo jàppoon ne anne bi dañ koy jeexale ay enseignement en ligne jusqu'en donc il fallait que le même conseil académique dajewaat bi mu dajewaatee nag évaluer enseignement en ligne yi ci ne nañ ci la wax ne nañu dellu ci enseignement présentiel parce que enseignement en ligne yi amoon nay limite mhm. donc à partir de ce moment nag ñun lañu la ñu jublu ci réforme yi donc loolu ñaari gàllankoor yooyu moo tax peut-être ba ñu affaire yi amee rek on ne pouvait pas agir tout suite parce que organes yooyu yëpp il fallait ñu attendre seen signal pour mën lii ay travaux lii di ay réformes. mais par exemple au yéen si seen réalisation nekkagul loo xam te dafa effective et que ñoom peut-être ñu euh, wala ñu repenser par rapport ak euh, enseignement euh, présentiel yi parce que fu mu nekk nii ñoom bëgg nañ def enseignement présentiel or yéen disponibilité pour que loolu mën a nekk ba léegi effectivement ko est waxtaan ngeen ci wala. tout à fait euh, ku ci nekk day jël décision boo xamante ne nii sans pour autant consulter keneen ki. xam nga boo gisee xam nga li ma la wax nii muy réforme sécurité réforme accès hébergement yooyu yëpp ñun mënoon nañ ko def kuddu de manière solitaire comme li Ibrahima wax mënoon nañ ko def bi ñu tëjee ñu ne nañ ko def mais mais crise bi dafa àggoon foo xam ne benn acteur mënul warut a woon agir lui seul parce que boo réformé fii te réformé woo day am problème parce que l'université a été impactée dans sa globalité parce que bu njëkk bu daan yàq campus social rek lañ daan yàq mais campus pédagogique lañ ko daan épargner mais boo xoolee bi yoon campus pédagogique sax lañ gën a lakk parce que amphithéâtre fac droit bi ñu lakk ba mu tëdd mmh. loolu mosul am dans l'histoire de l'université donc ñun moo mmh. dans sa globalité et repenser ah en général réforme yi dafa war a ñëw impacter ñëpp donc loolu moo tax ñu doon xaar le conseil académique donc conseil académique bi mu dajee au mois au début du mois d' octobre mais les professeurs li ñu proposé mooy ñu reprendre tout suite mais parce que ñun ñoo expliqué ne bu ñu ñun bu ñu demee rek ne dañuy reprendre tout de suite aussi bien le campus pédagogique que le campus social fàtte premier juin mel ni dara xewuloon mais on sera irresponsable demee lu gën a garaaw bu xewee mais dinañu laaj ndax ay nit lañu dénk université bi waaw wala déet donc discours boobu ñu leen wax moo tax ñu ne woon dañuy tout de suite démarrer waat ci début octobre ils ont compris que quand même un minimum de réflexion moo tax communiqué wu conseil académique bi boo ko xoolee dañ ne il demande à ce qu'il y ait un consensus fort en tout cas autour des réformes nécessaires pour que l'université redevienne sa qualité donc loolu boo xoolee seen communiqué génn na ci donc ça veut dire que effectivement conseil académique boobu teew nañ ca expliqué leen lii te moo tax sax ba tey jii enseignement yi démarré donc mais peut-être ñoom am na fu ñu mën a yem ñoom ils sont am nañ benn autonomie ñun am nañ suñu autonomie. donc am na fu muy àgg foo xam ne fii ku nekk peut day assumer responsabilité d'accord mais concrètement université kañ lay tijji concrètement non concrètement kañ lay tijji man loolu mënu ma ko wax. que wax ngeen ne di ngeen xaar ba minimum décembre. non non étudiants ñoom nee nañu lu ñu bëgg mooy ñu ubbiwaat école bi donc xam nga ne réeroo am na seen. diggante non étudiants yi seen bopp xam nañ ne. oui mënuñoo tijji tout de suite parce que gàllankoor yi bari na. on dirait ñun mesure de sécurité yi nga xam ne conseil d' bi énuméré na ko muy balaa ñuy tijji fexe leen système sécuritaire buy permettre assurer la sécurité des biens et des personnes parce que événement yooyu menace bi mu nekkoon ci étudiants yi dañoo am chance ba leneen xew ci. Hmm. mais les travailleurs du COUD noonu lañu ñu amee tamit impacté wu noonu la impacte impacté mais les travailleurs du COUD c'est celui bi nga xam ne day xëy 6 heures du matin pour préparer hmm. te balaa mu fay jógee 22 heures mu jox leen reer ba pare. te saa yu événement yu mel nii amee seen i oto la toj hmm. lakk seen i bureau ñu agressé leen gaañ leen donc yooyu ay ay mbir la yoo xam ne quand même dafa jara dafa jura jara solaale ci mais mais mais déjà ci sécurité boobu moo wax parce que am na journaux yu bind hmm. le vendredi ou le samedi que le COUD veut armer li nga xam ne ñoom ñooy seen service de sécurité xam nañu mbirum franchise universitaire bi ñu juddoo ba léegi hmm. ñu ngi koy wax est-ce que effectivement COUD la mu bëgg mooy agent de sécurité yi mu yore di tàmbali di yore ay ngànnaay comme police wala comme gendarmerie wala lan nga ñu mën a leeral ci loolu. non xam nga bu nee dañoo renforcer sécurité bi le débat est ouvert xam nga actuellement demain on va vers des assises de l'université hmm. conseil académique bi ma tudd léegi dafa war a réunir. ay assises yooyu sax am na coow après naa newu ci assises. pour faire les assises de l'université entre jeudi et vendredi. Hmm. ci assises yooyu on va discuter de quelle sécurité. type pour de sécurité mmh. parce que le, la sécurité du code actuellement ni mu configuré wu wane na ay limites am. vingt étudiants que franchise étude universitaire ba ñuy wax. waaw mooy première limite boo xam ne nii. waaw non boobu dinaa ci ñëw sax. Mhm. tey jii vingt étudiants yi yore ay xeer. Mhm. ñu ñëwee ci porte code fekk fa agent yi sànni leen ay xeer buntu bi ubbee parce que agent yi amuñu benn moyen de défense bu dul seen doole. amuñu benn arme hmm. quel que soit nu mu sommaire pour faire face hmm. donc xam nga ne sécurité boobu mënatul mënatul jàkkaarloo ak ak ak menaces yi hmm. voilà d'autant plus que tey yi ay jaasi la ay paaka la ay cocktail molotov la donc moo tax actuellement nii on est en train de penser quelle sécurité pour l'université est-ce que dañuy def une police universitaire oui ou non police universitaire boobu bu ñu def bu ko dee def lan lay doon parce que le terme police war a jiital war police administrative am police municipale am na en France amoon na Sénégal ay temps police mën nañu ko jox en continu du nekk police bu peut-être mën naa bañ a nekk police d'état bi ñu xam répressive avec les moyens des armes ak yooyu mais quand un minimum d'équipement buy permettre à ce bu yenn menaces yi amoon premier juin waree am mais nit ñi mën a faire face hmm. parce que tamit université dañu war a war a assurer sécurité Euh, mais mais monsieur Sène est est-ce que hmm. euh, communiqué ngeen ni mu ni mu waree pour xamal peut-être étudiants yi bu ñu non seulement mënaguñu tijji léegi mais bu ñu tijjee également la ñuy fekki la biir UCAD. Ah, mais justement loolu moo tax ma ñëw ci plateau bi. Hmm. Hmm. est yeexu leen ko def aussi parce que. depuis juin ak ba léegi octobre ça fait cinq mois déjà. non non mooy c'est-à-dire loolu xam nga communication moom du wees. l'essentiel mooy tey jii étudiants yi commencé nañ comprendre. bu baax parce que ñoom encore une fois xam nga dama doon wax àggul. mesures yi nga xam ne moom la conseil académique conseil d' administration bi diste hmm. mais étudiants yi bi ñu ñëwee ci conseil d' administration bi indi nañ ay batterie de mesures yoo xam ne dañ ko proposé pour ñu dolli ko ci suñu yos hmm. voilà yoo xam ne yi par exemple bu bu politique amati ci espace universitaire ma d'accord na. muy pouvoir muy opposition loolu est-ce que mën ngeen ko dindi. non non bien sûr. bien sûr université université moom de manière générale daanaka c'est le lieu par excellence de la mm-hmm. politique. et ça depuis Mathusalem. est-ce que loolu mën ngeen ko. mën ngeen ko dindi non non politique di exprimer woo. ci actuellement d'accord bien sûr loolu lañ a bannir université mm-hmm. parce que grève université musul am. Mm-hmm. fo musul am pour des front bu daan am amical la koy def c'est pour une question pédagogique ou sociale man nga nag politique mooy dem par des idées convaincre ay nit dugal leen ci sa parti loolu mën nañ ko d'accord mais politique bi ñuy xam léegi nga xam ne da ngay da ngay ne ni diw laa diw laa àndal diw laa violence non da violence sax hmm. parce que événement yi xew université nekkul ay questions sociales ni ay questions pédagogiques c'est des questions politiques te loolu du yoon loolu musul am d'accord nañ ñu recruter di ay nit politiquement ñëw véhiculer say idéaux ñëw recruter ay personnes yu dugg sa parti mais quand il est question de manifester vers la violence mais nga dem nga dem ci biti fa nga koy defee mais def ay violence def ay front pour des questions politiques c'est la première fois que mu am loolu moo tax étudiants yi les amicales am responsabilité nañu bannir cette forme de faire la politique dans l'espace universitaire mm-hmm. donc il y de mesures lu mat ay dix yoo xam ne yi étudiants yi seen bopp nañ ko nañ ko dolli li kudd wax mm-hmm. waaw léegi nag yow nan nga mën a waxee ne nañu togg ceeb ceeb baa ngi nii man ay man ceeb sax laa am ak jën. yow nga ne dolli ci carotte dolli ci légume. dolli ci basante. Hmm. ah ba pare de doo jël temps wu togg ko. il faut ñu may temps pour que la mise en œuvre. mooy mooy assise yi ngeen bëgg voilà mooy temps minimum pour mettre en œuvre damay revenir ci question saa waay. ban hmm, temps hmm. war a deux mois yooyu ñu tudd ko. bi ñu nekkee conseil d' administration bi ñu waxee ne dañoo war a teg mesures yi yëpp recteur daf ne mesures yi bu ñu ko waree déroulé ban temps la laaj. man spécialiste passation des marchés la xam naa ne mesure yi xam nga lan la war a nekk. Hmm. dañoo war a def cent mille cartes d' les étudiants. def cinq mille cartes pour les travailleurs permanents ak temporaires saisonniers rek yëpp. Hmm. ñu war a def deux mille cartes pour les visiteurs. Hmm. ñu war a cartes yooyu war a nekk ay cartes magnétiques war a am ay lecteurs yu leen di lire war a am ay terminaux war a am base de données fu ñu di analyser cartes yooyu di permettre à ku ko amul. doo dugg doo dugg université doo carte yooyu war a permettre ñu def ñu ciy def xaalis pour que restaurant désormais au lieu ngay dagg ticket carte bi ngay ñëw jàllale ko ci benn quelque part mu mhm. may la accès au restaurant nga mën a lekk carte boobu di doon fexe ba pavillon yi bees yi ma tudd léegi muy 800 yi mhm. bu ñu ko waree ubbi chambre yooyu da ngay pour ubbi chambre bi comme dans les hôtels mhm. ñoo ngi prévoir sax pour économiser électricité bi ak cherté bi ngeen doon wax léegi ñu ne boo ko dugalee courant bi boo ko génnee courant bi coupé loolu carte yi rek waxuma yeneen yeneen dispositif yi. mais loolu moo dem di ko jënd doo ko jënd ci marché bi comme gerte. y a minimum de procédure de passation. mais l'urgence am na am na ay réformes yoo bëgg indi ca université peut-être assises yi dinañu ci dinañu ci waxtaan mais l'urgence mooy man étudiant bëgg naa xam kañ lay tàmbali. on nu parle du 20 décembre ñenn ñi ne nii ñu ngi ci période presque ñu jëm ci ay élections. politisation boobu nga doon wax sànq day gën a feeñati ñu ko ubbee tamit même le vin boobu te jëluñu les les les les euh, mesures nécessaires avant ñu koy ubbi dafa xewoon rek a fay a parce que dañuy defaat ci si même situation mais man étudiant kañ lay tàmbali. ci présentiel mën a dem université jàngi. c' est c' est kañ lay dem jàngi loolu ça relève du pédagogique. du pédagogique bien sûr. mais mais mais campus social. fi ñu leen di soxlaa aussi mooy. ki jógee Ziguinchor wala jógee beneen région. bëgg ñëw jàng si même bu dee ubbi nañu. Euh, campus euh, pédagogique. Mhm. moom day am problème bu fekkee ne campus euh, social ubbiwul. xam nga la décision de reprendre les cours moom. Mhm. en ligne ou en présentiel kooku sa relève du campus pédagogique. tout à fait man li ma mën a xam mooy kañ laay opérationnel. sama mesure yi ma bëgg a jël pour sécuriser l' espace universitaire parce que la faa xewoon bañ faa xewaat parce que on est c'est une question de responsabilité parce que il s'agit pas nga gaawantu nañ ubbi nañ ubbi mais bu ñu ubbee euh, même chose di mu bañ a tëjaat parce que la fa xewoon bu fa xewaatee day tëjaat mais nañ ubbi ubbi boo xam ne bi dañuy lenn dootul tëj hmm. loolu mooy mbir mi donc moi je crois que ci loolu logique boobu lañ nekk hmm. et loolu étudiants yi nañ ko mën a comprendre ensuite dama doon wax des marchés c' est sûr que ak contexte ni mu demee li ma tudd nii waroon def appel d'offre normal ñu ne la jëlal 6 mois mais keroog bañ ma laajee dama leen ne leer na ma ne urgence ni mu demee Sénégal yépp xam nañ ne université tey lu ñu fi war a def rek dafa urgent donc mën a am ay procédures dérogatoires ay appel d'offre en procédure d'urgence yu ñu war a mën a ñaan direction centrale des marchés ak les ak en tout cas les les organes habilités hmm. ba nga xam ne bu ñu waroon def procédure si 6 mois maximum maximum dans 2 hmm. mois war nañoo war a def procédures yi am carte yi def test yi jël dispositif yi bu ñu dee décidé police wala universitaire wala système de sécurité bu ñu xam ne bi arrêté nañ ko ñu war ko mettre en place formation yooyu yëpp war nañ ko mën a def ci dans un délai minimum de de deux mois hmm. man keroog loolu laa wax en tant que quelqu'un qui connaît les procédures de passation hmm. donc loolu moo tax nag étudiants yi départ ne man maa ne 60 jours nangam alors que man mm-hmm. dañ ma laaj techniquement mm. ma doon indi une réponse mm. technique mm. voilà donc déggee tëll rek dañuy départ ne mais donc finalement 60 jours ñu ne loolu mais assises euh, peut-être très rapidement yaa ngi mm-hmm. junj assises depuis tout à l'heure ngeen war ko tàmbali euh, demain au moins pour deux trois jours euh, mu am kenn ci seen ñooñ docteur ba Seydi mm-hmm. génne benn pamphlet daanaka ne ni yéen seen assises yooyu ngeen bëgg taxawal li mu ci d'accordul bokk na ci yéen COUD ñu ne quarante personnes ñoo nar a représenté COUD ci yooyu la assise alors que yooyu la jamono étudiants yi peut-être sept donc ñoom ñoo leen di représenté d'abord est-ce que sur ce point euh, la lu lu am la wala wala nan la demee ci ci assise xam nga xam nga représentation wu corps bu nekk ak euh, corps en tout cas corporation bu nekk wala structure bu nekk hmm. loolu c'est réglementé par les textes normalement la conseil académique euh, étudiants yi sax waruñ caa dem à moins que recteur permettre leen à la suite d'une requête ñu tànn ay représentants yu leen ca teewal. donc conseil académique bii passé étudiants yi teewuñ ci la preuve mu ngi noonu te kuddu teewoon na donc kuddu membre de droit wu conseil académique bi la. Mhm. alors que étudiants yi seen participation c' procédure dérogatoire boo xam dañ leen dañ leen koy permettre pour que ñu mën a ñëw. la preuve mooy bii passé ñëwuñu mais bii dañoo bëgg ñu ñëw. Hmm. bii nag bu ñu bëggee ñu ñëw ñu leen représenté woon bee pa mais ñëpp mënuñ ñëw. Hmm. parce que ñoom am nañ am nañ ñoom am nañ ay président am ay PCS. Hmm. am la grand campus am les sites extérieurs donc li am solo rek mooy qu'il soit représenté. parce que majorité bi amu ci solo parce que xam nga lu tax kuddu war a am représentation bu am solo mooy kuddu dafa bari ay branches dafa am ñu yore restauration am ñu yore sécurité. am ñu yore hébergement ay ay saf ci site extérieur yi donc am ay syndicats donc ay ay ay les travailleurs fortement impactés par la crise donc ñooñu il faut ñu déglu leen. Hmm. donc peut-être segment yooyu yëpp la ñu xool xam ne ñooñu ñëpp dañoo war a ñëw représenté donc loolu moo war a yi on l'a pas pris peut-être recteur moo ko jël mais réel na ma ne jëlu ko rek ci teeyu kii lu ko neex mais dafa basé wu ne bu ñu bëggee am une réponse efficace. Hmm. aux questions qu'on poser nañu fexe ba kuddu. en tout cas segment bi yëpp ñu représenté wu ba nga xam ne question bu ñu posé dina am technicien bu ñu mën a jox une information exacte. Hmm. ci ci loolu nan la hmm. ensuite les commissions yi war a composer les assises mais y a une commission sur les œuvres sociales boobu waa COUD rek ñoo fay nekk. Hmm. ak étudiants yi. ak peut-être le recteur wala le représentant du recteur. donc y a une commission qui va traiter des questions pédagogiques y a une commission qui va traiter d'autres en tout ne serait-ce que pour la commission sociale foofu dañu faa soxla réflexion code hmm. ay justement ñëpp ci bokk. justement day am plénière au départ. am ay travaux d'atelier par commission dont la commission sociale nga xam ne COUD moo koy mené. réflexion yi ma tudd yëpp réforme yi ma tudd yëpp dans le détail ñu wax nan lañ koy defee loolu waa COUD ñoo ko mën a xam ñoo ko mën a discuter. donc il faut que tous les départements du COUD de syndicats soient voilà étudiants yi mënuñoo réfléchir pour loolu. parce que hmm. loolu du seen compétence. du seen compétence monsieur hmm. monsieur le directeur ndaje bi ngeen defoon vendredi passé. excusez-moi ndaje bi ngeen defoon vendredi passé da ngeen euh, ay euh, mesures yoo xamante ne euh, à travers su la base de ces mesures là mën nañu demaat ibbi école bi wala université bi. Mm-hmm. ma dégg la sànq nga ne dafa am solo pour ñu toog càmbaraat xool pour li fi amoon mu ñàkk xewaat. maanaam ñu anticiper li nga xam moom mooy peut-être li amoon ci ay événements wala ay malversations bu mu amaat. alors mesures yi ngeen génne woon da ngeen ko génne woon juste pour peut-être soog a travailler ci mesures yooyu wala vous avez commencé à travailler à réfléchir sur ces mesures avant ngeen di génne mesures yooyu exactement. mesures yan mooy yi conseil d'administration. bien sûr bien sûr. non yi conseil d'administration bi génne c'est le conseil lui-même. qui oui. a qui a exigé et qui a donné ses recommandations. oui donc euh, voilà donc c'est un constat général hein ku nekk xam na ne euh, même sans grande réflexion. xam nañ ne bu ñu waree ubbiwaat université bi. Ah, kooku bu nekkul université sax war ngaa xam ne système sécuritaire bu fa nekkoon ak défaillance yi mu am ba li xew-xew war nañ ko réformer. Mm-hmm. mais ku nekk ci biir espace xam nga ne les conditions d'hébergement actuelles des étudiants. Mm-hmm. mais source de problème la. Mm-hmm. fu ku nekk xam ne promiscuité les quartiers surpeuplés toujours ay problème day am parce que surpeuplement beeg promiscuité bee tax. donc réformer ko loolu bon sens bi sax moo la koy wax. accès bi tamit. université nekk passoire boo xam ne bii ku mu neex dugg ku neex génn nit façon nit bu ne di fa dugg doo xam ne mu fay wut si mais loolu ku nekk xam na ne boo bëggee sécurité am ci code. lu ñu mën a la. bu ñu demee ba léegi fan la fan ay jaas ak ay paaka mm-hmm. am na mm-hmm. benn image bu ma gisoon je pense c'était l'an passé nga xam ni mm-hmm. daanaka ay saako jaas ak ay paaka yooyu la ñu génne. voilà ñenn ñi accusé na non est-ce du sécurité wu des échos di ñenn ñi na ni yi la. mais loolu yëpp nan la rombee. ba war a duggu ci université ci espace pédago euh, espace euh, euh, campus social. peut-être. parce que seen sécurité moom moo moom moo défaillant mais justement non seulement sécurité bi dafa défaillante mais am nay armes yu bari gars yi kii mur yi lañ koy jël xam nga daaw am na fi ay cocktail molotov ay saako cocktail molotov yi ñu hmm. découvrir oon yoo xam ne yi benn nit moo ko doon jël ci mur yi barbale yenn yi accroché wu ci barbale yi yenn yi hmm. réussir woon na ba sànni ko ci biir ay cocktail saako cocktail molotov te ci cocktail molotov ku ne xam ne ñu koy utiliser hmm. donc loolu day wane ne quel que soit le système de sécurité qu'on met en place il y a toujours des gens qui essaient de contourner mmh. notamment jaar ci ay mur di tëb jël ay bagages yëg ay ci ay échelle di ko sànni loolu yëpp ma nga fa léegi lan lan mën a jàpp fan lañ mën a jàpp peut-être ni fa ngeen lajjee pour que comme li nga wax sànq yaa ngi wax ni yàgg ngeen jël ay mesures moo xam ci wàllum sécurité mais également changement yi ngeen fa andi comme ci wàllum quartier pour que dugg UCAD ku ne xam na ni léegi yombatul fan ngeen lajjee pour peut-être li nga xam ne moo jëm ci wàllum sécurité ba léegi di poser problème foofu UCAD xam euh, Birahim dafa wax léegi benn concept muy les franchises universitaires hmm. waaw fex bon ñu nag ñu extrapolé ko euh, application bi defuñ ko na mu waree hmm. euh, loolu mooy li ëpp ci gàllankoor li tax tey suñu sécurité indiwuñu police carrément wala gendarmerie mu assuré sécurité hmm. mais ku nekk xam na ne yéen ñii seen bopp la ngeen di wax ko non on ne veut pas waaw police yi dugg wala gendarmerie dugg parce que dañ mën a xaw a taal waaw franchise universitaire daanaka fi lañ ko fekk depuis depuis belle rek waaw mais tey pratiquement moo tax ba police du mën a def lu mu. Mm-hmm. liggéeyam normal mm-hmm. ci biir. ci biir université mais soxna xam nga ne fu 100000 personnes nekk. Mm-hmm. ban quartier Dakar fii moom nga mën a wax ne dama koy encercler police du dugg gendarmerie du dugg mais foofu lan nga fa mën a teg. lu efficace lu assurer sécurité nit ñi mënu problème mu franchise universitaire yi bokk na ci li nga xam ne mooy gàllankoor bi gën a mag mais problème bi mooy dañ ko application bi ñu ko def wala boog interprétation bi ñu ko def dafa baaxul hmm. dans la mesure où franchise universitaire normalement campus pédagogique rek la ko mais étudiants yi seen bopp ci hmm. seen lutte yeeg seen xeex yi ñoo dem ba boole ci campus social alors que campus social police d'état moo ko waroon a gérer hmm. franchise universitaire laaj loolu social le professeur Ndiaw Diouf à un moment def na ci benn article buy wane ni. le campus social est nekkul ci régime mu. franchise universitaire police d' police normale moo ko war a assuré. mais étudiants yi seen pratique ñoom ñoo dem ba. parce que mel ni quartier la rek. ci benn commune boo xamee ne ne quartier bi ci ci. waaw euh, boobu moo tax tey pour nga teg fa sécurité bu efficace. efficace mais ku ne xam na ne police wala gendarmerie moo fa waroon nekk di réglementer lépp. Hmm. police ak gendarmerie nag. àndam ak étudiant dafa xaw a compliqué ndax ñoom saa yu mbëkkante amee rek lu ne mën a jaaxal parce que effectivement dans l'histoire de l'université am nay tax yoo xam ne la police était à l'intérieur jàppatuma année bi mais année boobu je crois que décès wu Balla loolu moo ko indi pendant deux mois événement yi dafa graawoon comme nii ba gars yi ne léegi na police dëkk ci biir pendant deux mois mais na mujjee mooy ay affrontement hmm. benn jour rek la affaire yi éclaté affrontement am ci Balla Gaye décédé donc loolu moo tax nag nit ñi soxla nañu sécurité boobu mais risque boobu la am parce que ay ay élément armé bu nekkee ci mbooloo mu toll noonu nekk ay xale saa yu affrontement amee rek lu ne mën na xew. Mhm. moo tax sax événement bu amee police day hésité bu baax balaa muy dugg. parce que dugg bi dugg bi lu ne da cee xaj. mais li mhm. valable ci police nga xamee ni am nañ formation jàng nañu ko gendarmerie am nañ formation xam nañu ñuy gérer ay manifestation wala ay foule ce que tey. c'est vrai que di ngeen ko waxtaan ci assises yi boo leen jëlee des éléments par exemple extérieurs à la police wala gendarmerie def benn benn xeetu police biir université surtout ci campus social formation boobu tamit dañ leen di accompagner pour ñu euh, bañ a am ay armes rek par exemple euh, di dal ci kaw étudiant euh, sous prétexte que am nañ benn benn benn légitimité bu leen waa COUD wala waa université jox. non xam nga formation bi moom. am ñun effectivement suñu agent yi am na benn programme de formation bu ñu leen di defal vraiment en maîtrise de foule pour faire face à des risques comment gérer en tout cas des étudiants qui sont et cetera donc y a une formation bu ñu leen defal daaw des modules de formation mais loolu doyul. du parce que voilà doyul parce que ay nit mais gis menaces yi moo moo doy waar xam nga menaces yi am léegi ci réew bi am fépp te épargne wul fépp daa mosul am. bu fi wax foofu terrorisme de. voilà non nekkul question terrorisme sax mais xam nga ay côté Molotov. Ah. loolu ñun suñu histoire mosuñ koo xam. xool nga résultat yi am ci bis boobu nga xam ne ak ña fa loru. donc genre de menace yooyu mais luñ la formé formé formé te joxuñ ay équipement nécessaire pour faire face mais tu es inefficace. effectivement inefficace. je que par rapport ak sécurité boobu noonu. surtout pour euh, problème am bi gën a mag sécurité la. bi ci gën a mag mm. yaa ngi wax léegi par rapport ak euh, formation ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk de l'extérieur ñi ngi gis ne euh, DG bu ñëw day indi moom ay nitam mm. changé ñu fa nekkoon euh, mm-hmm. def ay gros bras bon gis nañ ko fi du lu lu bëri yoon par rapport ak aussi tamit arme yi nga xam ne des fois dañuy gis étudiants yi di ko yor mais aussi tamit dañuy gis ñi nga xam ne ñoom ñooy gros bras yi nekk ci ci ci ci coude di ko yor et est-ce que ça est-ce que ça pas peut l'occasion saisie de faire appel à l'agence de sécurité de proximité parce que bu ñuy wax par exemple ASP, police oui. police municipale en France ak yu demee noonu bi ñuy defar ASP yi c'était pour donner une réponse par rapport ak police municipale yi nga xam ne moom moo am euh, France bi demee noonu donc est-ce que yaakaaroon la ne que au lieu de recruter ñoo xamante ne ni euh, ci presque yéen la ñuy bokk ngeen dem def appel à l'agence de sécurité de proce de proximité pour que ñoom ñuy mën di assurer la sécurité au niveau euh, de l'espace du campus puisque ñoom ci boo xoolee am ñu formation et que ñu mun a euh, li nga xam ne ni pare mooy éventuel risque yooyu nga xam ne université mën na ko di di di subir à chaque fois bu euh, événement amee. waaw xëy na dinaa rectifier tuuti rek ci wàllu arme ak yooyu. Mm-hmm. agent wu Koudou mosoo gis kenn du ko fa yor arme. xalaatuñ ko sax parce que boo ko defee étudiants yi étudiants yi boo moytuwul. mais déjà des fois nag bu ñu des fois euh, ay échauffourée bu amee dañuy gis des fois yenn agents yi yor. yor yor ay kii de ay bant ak yooyu. non dañ koy gis se disent. qui se disent agents. Mhm. wala ay nit ñoo xam ne dañ naan sécurité ou DG la yore. et ça date de Maguette Sène. ah oui ah oui loolu du wala quoi que ce soit loolu amul. ndax hmm. loolu bu amoon étudiants yi seen bopp doo fa mucc Mm. parce que voilà quoi loolu xam xam nga loolu lan la. Mm. mooy image yi ngeen di gis ci mbedd meeg ak réseaux sociaux yi rek. Mm. ay nervi yi ñoo ngay daq diw ay nangam yooyu la. nervi ay nervi yi leen di ah, ah, waaye non non non pas non non non loolu. loolu mooy la rumeur rek yi xam ne ni ñu dañ koy créer naan ay nervi jaar nañ fii jaar nañ fee yooyu nañ arme ak yooyu. loolu université enceinte université benn agent de sécurité xalaatul sax yore arme mënut a nekk parce que ñoom loolu du leen ci fekk. mais balaa mu leen koy fekk ñu ñu ñu dégagé bàyyi yi def li ñuy def hmm. mais boobu risque bi ko jël parce que yore arme bi université ay centaine centaine de mille nga bëgg a yore ay arme ay ngeen nekk une centaine yéen ngay nekk cent mille ah <laughs> mille fois plus nombre que vous nga yore arme da ngay xaru loolu ñoom du leen ci fekk hmm. balaa mu leen ciy fekk ñu daw bàyyi hmm. effectivement su ma leen ma leen a parce que ils sont pas équipés donc agent de agent wu kudd mënut a yore ko autorisé wul mu yor mënut voilà maintenant agent de agence de sécurité de proximité d' accord naa aussi. c' est des propositions rek. Mmh, mmh. des propositions parce que on va vers nos assises. parce que ñoom ils sont mmh. formés. voilà la plupart du temps on les voit avec la police. donc euh, c' oh, que yor nañu. mais même loolu est ce que mën nañoo gérer. étudiants yi non xam nga non pas pas pas gérer mais au moins participer à à la sécurisation. du du parce que aussi tamit COUD. bien vrai que euh, wax wax ngeen que ne fu mu nekk nii li nga xam ne mooy saytu bi ci dugub bi génn gi gis nañu avancé yi ci am mais am na ay fay parce que à chaque fois bu dara amee événement amee hmm. dañu gis ne université hmm. euh, étudiants yi wala ñeen ñi nga xam ne ñoom ñooy hmm. dugg ci ci mbir mi lu ne dañ lu ne dañ koy yor donc buñ fekkee ne am na ñoo xamante ne ni ils ont été formés pour parer à d'éventuels Euh, situation dafay gën a daf dina gën a yombal seen liggéey. xam bi nekkul formation nekkul professionnalisme nekkul loolu parce que bu dee loolu la rek ñoo ngi def formation te ñun pare nañ pour fay lu ne pour que nos gars soient les plus professionnels possible limite bi mooy équipement yi ñu am pour faire face. loolu mooy limite bi. yow li ñu la formé formé formé équipement mooy lan. mooy mooy mais mais ay grenade lacrymogène au moins. grenade lacrymogène mooy. wala ñu mën a am ay ah, grenade lacrymogène. mu yenn foule yi ñu mën koo disperser mën a faire face. ah mais pourquoi pas. ah non non non non kay moom dañ ko bàyyi waa ASP rek nag. non non non non mais est-ce qu'il ne faut pas. non non moo tax on est en train de réfléchir mm-hmm. sur mm-hmm. le système de sécurité. quelle forme et mm-hmm. quel contenu. quelle euh, arme juridique. lañ leen war a mën a équiper lan la mooy seen compétence fu mu dem ak lañ mën a utiliser. pour faire face loolu dañu war a réfléchir. mais est-ce que bi ngeen war a njëkk a jouer avant même ñuy àgg ci sécuriser ak ay police wala gendarmerie wala ay euh, agent yoo xam ne ñu yore arme quel que soit arme bi ñu yore est-ce que rôle bi njëkk warul nekk fexe ba étudiants yi jël conscience te fa ñu ne. la ñuy taal la yàq ñoo ko moom jeexital si ñoom la jëm est-ce que. discussion boobu conscientisation boobu warul nekk nekk forme bu njëkk pour sécuriser l' espace pédagogique euh, l' espace euh, campus euh, social bu université. effectivement xam nga loolu nga wax yàlla suturaal nañu ci. Hmm. boo xoolee bi ñu nekkee université ak léegi à part mars deux mille vingt et un xam ne boobu ñoo ngi doog a ñëw maa ngi dem kudd novembre deux mille vingt hmm. mars deux mille vingt et un hmm. moo nekkoon suñuy première peut-être apprentissage. géré une crise mars 2021 ba 1er juin boo xoolee amul benn grève benn front bu am université parce que effectivement démarche inclusive boobu participative man loolu la amoon ak étudiants yi dugg ci seen biir di dem ci seen restaurant yi di dem ci seen néegi dinaa di naan ataaya discuter ak ñoom di leen boole ci lépp li may def ba yenn agent pour di sax jàpp ne étudiants yi laa li am dafa ëpp démb ci benn réunion wax nañ ma wax nañ ko ne étudiants yi dañ leen may lépp leen non mhm. man sama sama sama style de management nekkul style bu may yéeg ci kaw di xool ki may administré ci suuf hmm. kooku muy sama commune muy kodd du ma ko def parce que xaw ma loolu man li ma xam mooy kuñ ma ji voilà kuñ ma ji ne yi kii yaa ko yi def yaa ko war a gérer ma wàcce sama bopp ba toll nii bu toll yow hmm. ñëw à niveau hmm. donc loolu vraiment yàlla sutural na ma ba am na humilité wu man a méngoog ñi ma jiite ba ba fondre ci seen biir ba ñu ba ñu ba boole ma ci seen bopp loolu yàlla la sutural nañu ba université à part le premier juin on est resté deux ans et demi gars yi dëkk ci avenue Cheikh Anta Diop am naa benn tailleur bu bu nekk ci kaw avenue bi. Hmm. ñoom li ñuy ñaan mooy yàlla boo fa jóge hmm. ndax ñoom ba ma ñëwee ba léegi seen boutique yi tëjuñ ko. amul benn manifestation bu leen inquiété amu fa. Hmm. la promenade des étudiants nga xam ne moom boo rombee buntu université di dem Dakar xool ngeen ni ñu ko aménagé ak ay fleurs ak ay ak ay lampes. mais foofu bi may ñëw daa feesoon dell ay ay ak ay xeer. foofu loolu le policier yi daal xeex ak étudiants yi chaque jour oh c' était plein un champ de de cailloux et de pierres ma ñëw defar ko def ci ay fleurs def ci ay làmp gars yi ne ma. ay vacances laa ko doon def gars yi ne ma lii de moom octobre novembre lañ la may. pour que lampes yi toj pour que garab yëpp da ñu dagg la. may leen baax na. mais ba ba le premier juin musul am. benn benn lampe bu ñu fa toj. musul am benn grève ni benn front. donc may saluer nag les délégués muy les présidents et les PCS xam ne ànd naa ak ñoom ñëpp ils ont été responsables ñoom ñëpp boo leen waxee kàddu responsabilité jox leen cër nawloo leen rek da ngay gis ne dañ da koy delloo te dañuy raisonnable parce que ñoom tamit ils se sont rendu compte que man la ma leen waxoon mooy balaa ngeen di revendiquer pour étudiant bi man ci sama bopp maay njëkk a pour faj loolu du ma sax ngeen revendiquer chaque année dañu def benn plan d' action man ñoom ñu ne ma pavillon yi yëre femme lañ ci bëgg restaurant yi yëre femme lañ ci bëgg nangam nangam nangam on fait un plan d'action une feuille de route en début d'année mm-hmm. mesure bu ñu réglé ñu def ko mm-hmm. diligence exigence bu ñu réglé ñu def ko avant la fin de l'année on atteint toujours 100 pour cent par rapport à leur plateforme de début d'année mooy ñoom la mm-hmm. ñu waaw mais loolu moo ñu aidé ba une euh, problème ce ne sont même pas les étudiants régulièrement inscrits étudiants à l'université ñëw nekk ci seen campus social. Mhm. mais ce sont ñeneen la politique. les politiciens muy mars juin politique bi la. Mhm. politique baa ñëw impacté négativement notre espace. mais yéen politiciens yéen a dugg ci yéen bokk de parce que c'est ni ko Viraye waxee c'est par excellence un lieu de politique ah étudiants yi yàgg nañu gis ñu yëngu ci wàllu politique mais si yéen politiciens aussi euh, am ngeen ci part de responsabilité parce que dégradation idéologie politique nga xew ci dafay am ci sama personne man en tant que directeur du COUD mu am ñu nekk ca espace ba nekk bokk maire ma bokk ak ñoom parti ñu gis ma seq ak ñoom ay relation nit ñi foog ne man maa leen yilif maa leen di def loo alors que demeewul noonu maire dafa am coordonnateur national boo xam ne bii dépendrewul ci man. day jokkoo directement ak autorités yi gën a mag. mais dina dina la respecté nag. doo naan kii ah, ah. APR la bokk. waaw waaw mais dina ma respecté. dinaa ko respecté. comme ni ma joxee respect euh, euh, euh, ki jox opposition bi mais am na ay années années yee passé hmm. mais man dañ man waa dañ ma doon accusé ne. opposition bi laay gën a favoriser seen kaw mais loolu am na fi ñoom ñoo ngi may dégg ci télé laa nekk voilà de sorte que man voilà j'étais loolu day wane ne j'étais à égale distance maa ngi doon jéem autant que possible administrativement parlant man ma je suis administrateur civil administrativement parlant su ma nekkee ci espace bi may jéem a xool nu ma équilibré nit ñi di sentir ne ku ci nekk say àq ak say yelleef ñu koy respecté mm. mais d'un moment à l'autre les camps m'accusent mm. ku ci nekk en position de faiblesse rek ne man maa faral ñii ci kaw ñii alors que man nekkuma ci pour dara. ñoom dañoo am ay ay ay état major yu leen di jox ay directives muy pouvoir di opposition ñu am seen i plan d' di ko déroulé. loolu nag la amicale yi wax ne na fi génn ma d' ci. parce que ma d' accord ci maire. mouvement des étudiants et xaw ma lan. le MEL mouvement des élèves et mm-hmm. ne la. pratiquement tous les partis politiques am nañ seen mouvement élèves yoo xam ne ca mm-hmm. université ñu ngi fa mm-hmm. am seen i bureau daanaka ndax seen benn néeg la ñuy jël def ko seen seen googu nag euh, seen quartier général lañ war a arrêté mais naa pour ñu arrêté ko ah, mais muy pouvoir muy opposition mais bien sûr mais ça c'est peut a à un niveau aussi supérieur où yéen parti politique yi da ngeen di waxtaan ci entre parti politique ah. opposition comme pouvoir ne leen ah, attention parti politique moom waxtaan waxtaan mënatul am moom ba déggoo moom mënut a am entre parti politique ba ñu arrêté ay consensus ou quoi que ce soit mm-hmm. loolu kay les présidents d'amicales et les PCS ñoo mm-hmm. xam ne ñoom ñoo am légitimité mm-hmm. à parler au nom des étudiants ñoom ñoo war a a taxaw ni ñu ko defee comme proposition ñu taxaw dëggal ko mm. terewuñ ay idéaux politiques ay idéologie politique voilà ay ay nga wax ay nangam nangam tant que c'est civilisé mm-hmm. mais jël ay armes wala ay moyens yi nga xam ne de revendication dans le domaine social nga koy def à des fins mais loolu la ñu war a dindi loolu la ñu war a arrêté mais lan ngay yi ñu ñuy déglu mm-hmm. mais kañ nañu ibbi exactement. que une fois. kañ nañu exactement pour pour jàngi université parce que les étudiants pour dire vrai ñoom bu ñu xoolee seen discours bi ñu tenir si seen point de presse bi ñuy def avant-hier ñu tere ko au niveau de l'université d'ailleurs bu day benn point sax boo xam ne ñoom nee nañu autorisation. Mm. ñoom nee na police nee nañ amuñu autorisation benn boobu benn point. Mm-hmm. mais concrètement concrètement sànq maa koy laaj lan la mën a teg ci seen loxo pour ñu ñoo xam ne peut-être dañuy xaar jusqu'en janvier jusqu'en deux mille vingt quatre jusqu'en février ou et concrètement la ñu mën a jàpp exactement peut des affaires man du conseil académique bien sûr mais campus social bi am na ci part de responsabilité waaw ah, mais justement man mhm. conseil d'administration ma ñoo ko jël comme décision préalablement les dispositions nécessaires pour mettre en place un dispositif de sécurité en mesure d'assurer la sécurité des personnes, des biens et des équipements. Donc, tant que sécurité boobu amul. Ah euh, léegi euh, Maguette Sène ci mesure yi ngeen jël est-ce que bàyyi ngeen xel peut-être personnel bi foofu parce que si on se rappelle bien ci weeru euh, juin bi am na ci ay bus yu bari yoo xam ne taaloon nañu ko ak ay oto également est-ce que yéen a ngi bàyyi perso xel personnel bi nga xam peut fi ñuy jugee dafa sori pour ñëw UCAD. personnel bi ci mm-hmm. boppam li ñu exiger mm-hmm. seen sécurité ba seen bakkan dootul gerte. ñoom pare wuñ pour liggéey si waat. ah c' est logique c' est loolu beneen beneen mbir la. te ñoom dañ seen loolu tamit ay doomu aadama lañ. c' est ah, seen ak seen élèves dañ ko war a sàmm. parce ñoom bu ñu amul université bi du dox. bu ñu taxawee grève benn jour rek université tëj. ça restaurant yi duñ dox. Hmm. chambre yi duñ leen nettoyé. toilettes yi catastrophique. Hmm. Hmm. donc ñoom tamit moo tax université dafa bari ay pàcc te ku ci nekk dañoo war a xool sa àq ak sa yelleef nga respecté ko étudiant bi dafa am àq ak yelleefam muy jàng ñun dañoo war a en tant que adulte responsable fexe mu waaye tamit condition ya muy jànge acteurs yi ciy agir dañu fexe ba ku ci nekk sa àq ak sa élèves ñu respecté donc travailleurs effectivement ñoom tamit ils sont dans une revendication travailleurs yi bu ñu nekkee ci jafe-jafe moo tax ay ngeen tubaab yi parce que kenn du naan da ngay passe étudiant yi leen doo dugg je que euh, il faut que nécessairement euh, savoir raison garder autant pour les hommes politiques les partis politiques ñoom ñëpp ku ci nekk xam ne ah université de espace jàng loon même bu dee da ngay jàng politique am say idéew mm-hmm. mais du am na façon yoo xam ne doo ko doo ko doxalee mm-hmm. euh, nous tous on a été étudiant am na loo mm-hmm. xam ne yàgg nañ koo gis université euh, mais grève wala yii xam nga xamee ni xew na ci ci jamono yi ñu weesu man dama daan romb buntu université mais j'étais mais dama doon kontaan gis ni ñu ko defaree ni mu rafetee mais au bout de quelques jours nga gis ñu yàqate ko mais tout Sénégalais se sent un peu mal bu bu rombee li xew foofu. Mhm. ak li fa xew te lan moo ko waral mbirum politique. Mhm. muy opposition muy pouvoir mhm. euh, kii indi lii kii indi lële je pense que yéen moom yéen ñëpp laay laay blâmer sur ce plan tous les hommes politiques. parce que coow li coow mooy ñoom ñoo soppi un peu. Euh, xalaatu ndaw ñi nekk ci université ba yenn yi ñu koy sañ a def. ba en tout cas c'est c'est merci déjà de. de d'avoir accepté waxtaan ci loolu sa nous permet au moins ñu mën a avancer comme l'a dit Alamine euh, ak Cheikh Diop mm-hmm. au moins étudiants yi nañu xaar ba assises yu weesu voilà ak peut-être li ngeen ciy jël comme les mesures qu'on va mettre en place yoo mm-hmm. eh, leen ne leen ñëw leen ah. bu ngeen nekkee di xeex université bi di di indi coow mais man su ma waroon a concentré wu cent pour cent pour def liggéey bi mm. mm-hmm. quatre vingt pour cent peut-être laay parce que vingt pour cent yi coow li dina tax ba. concentration bu waroon a am ci liggéey bi pour mu gaaw dootul gaaw. mais wax naa démb rek am na ñu wax téléphone ne leen ñëw leen ngeen accompagner ñun ñu mettre en œuvre réforme yi mu gën a gaaw. accélérer la cadence nag. parce que ci biir université bi boobu c'est vrai que ay évolution am na gars yi def nañu ay jéego yu am solo merci monsieur le directeur mais quand même il faut le dire ci biir campus bi ci boppam mais c'est parfois c'est c'est des c'est des situations. yoo xamante ne kenn mënu la ko wax. yëpp yéen mais attention de. foofu lépp yéen non à l'intérieur des nii la nag am na ay améliorations yu am solo. bien sûr je l'ai déjà dit. yoo xam ne processus la. oui. nous sommes un pays sous-développé lépp lépp mënul tëb rek rafet en 100 pour cent. mais pourquoi ñu def ci génn ci biti. non ci enceinte bi. non defal ndànk defal ndànk pavillon yi defal nañ ko ba mucc ay maanaam à l'intérieur boo doon xool ay armoire yu daan waaye ñuy ñoom ay armoire en béton lañ def maa lay tontul def ci ay fermeture yu am solo ñoo yàq ci biir seen seen sax moom leer na ma ne ba muy jàng moom ay matelas éponge ma nga université ay matelas éponge yoo fa nekkoon ay matelas éponge lañ amoon léegi ay matelas orthopédique non mais c'est que yoo xam ne man samay doom sax duñ ci tëdd mais là moom laa am si biir campus bi fu benn chambre boo ko y a des efforts qui sont en c'est comme six personnes ñoo fay des efforts on va continuer à faire des efforts chambre boo xam ne tout n'est pas rose mais on va continuer à faire des efforts chambre boo xam ne maximum six personnes a fa waroon ne ah. nga dugal fa quinze personnes personnes. waaw condition wu 6 ak yu 15 du doon benn. waxuma chambre ba waaye toilette ba ñuy. utiliser mhm. bu doon 6 ak ay utiliser 15 utiliser ko. Euh, cet bi donte waa Kout ña ngi koy jéem nu ñu mën du doon benn. ce qui est sûr mooy il faut conscientiser. tëggat pas seulement l'étudiant parce que je n'ai pas blâmé les mhm. étudiants je l'ai été. mais conscientiser les Sénégalais de manière générale. Ah mu am benn genre citoyenneté boo xam ne man. sama néeg ca université du ma nangu alamine am neneen lu muy comporté yoo ci biir couloir yi ñiy jël seen musique teg fii euh, sama daayira yi fa nekk moom beneen débat la loolu chaque jour mu indi coow euh, ñi nekk fii ne dañuy euh, wàcce kaamil fii ñi ne dañuy mm-hmm. xasaay fii murit la ñu ne dañuy wasifa fii mu ngi beneen caw ñu ne non am na heure boo xam ne ça tout ça il faut réglementer ah ça c'est vrai que c'est c'est mm-hmm. Sénégal en miniature loolu la da ngay nangu ci quartier yi ci koñ yi da nga koy nangu ci biir université mais nañu xool luñ koy avec la seen dix mesures yooyu bokk na ci nañu arrêter tout ce qui est euh, nuisance sonore a partir de mm-hmm. minuit muy ay jàngak ay daayiraak ay yooyu ah, donc donc c'est important c'est important que nit ñi toog réfléchir en tout cas ci ci foofu la ñuy jeexal bëggoon naa ci ci wàllum politique euh, Maguette Sène parce que gis nañ tabu yu yees yi nga xam ne président Macky Sall mi mi ngi ko doon amal ñu ci bari doon xaar peut-être euh, mu am lum la bu ñu gis ni créé na ay frustration surtout fa nga dëkk muy Malicounda ak jeunes yi est-ce que mën na indi peut-être njeexintal ci présidentielle yi bon xam naa ni ñun dinañ fexe ba du am jeexital Malicounda mm-hmm. loolu moom euh, liggéey ba ñu war a def daañu ko def effectivement les gens peut-être am na lu ñu doon xaar lu ñu gisul. frustration. parce que Mali parce que Malicounda tey bu ñu amee majorité à l'Assemblée nationale Malicounda joué na ci rôle bu déterminant dans la mesure où euh, les quatre du département de Mbour. bu ñu amuloon écart wu 3000 voix ak opposition bi à Malicounda kon tey jii on le répète. Mm-hmm. waaw donc bu loolu amee ci législative yi te amuñ député amul benn député ay yeneen i cër ñëw. yaakaar nañu amul cëru député war nañoo am ngoro. garde seen cëru député bàyyi nag yeneen cër yi ñeneen ñi jël ko ñooñu bàyyi war seen cër ñëw di xëccoo ak ñi mais loolu da indi problème dafa am ñuy liggéey am ñuy jëriñ rek moom mooy coow la ah, te loolu coow la coow la frustration la créé dans le département de Mbour te dina may conséquence ñun nag ma ne ko nekk ngeen fexe ba conséquence yi moom dina d'accord allah merci monsieur <laughs> <laughs> seen candidat ah. seen <laughs> candidat non suñu candidat suñu candidat day gagné nag moom saa waay ah, bu amee conséquence andi njeexin tan mooy li Lamine wax rek seen candidat du gagné présidentielle c'est ah, juste ça ah, en tout cas suñu candidat moom dina gagné Malicounda moom bu soobee yàlla incha allah waaw ñun na feneen moom maîtrisé wuñ ko <laughs> d'accord monsieur Sène en tout cas ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax rafetlu teewaay bi ak waxtaan bi aussi waaw maa ngi leen di jaajëfal bu baax di am mbégte tout cas bokk ngeen plateau wax dëgg yàlla mm-hmm. te yéen a def une bu am solo ci espace médiatique bi et loolu wane na ko ay vraiment ay journalistes de haut niveau yéen yéen ñëpp ngeen nekk autour de cette table là may souhaité daal vraiment ay yeneen i ndam seen média bi am ko incha allah incha allah incha allah merci beaucoup monsieur Sène Birahim ñu bàyyi la nga nga ànd ak moom merci merci à Maguette Sène merci également euh, ci étudiants yi nag mhm. jàpp leen daal euh, yenn saa yi ñu am envie delluwaat université. parce que on aime bien cet espace. Mhm. daf ñu former donc euh, nañ defaraat suñu université te mhm. jox ko doole bi mu amoon. Mhm. jox ko gëdd bi mu amoon. Euh, mën see génne ay étudiants yoo xam ni bu ñu génnee dans le monde du travail dans le marché du travail. nga xam ne étudiants yu baax la ndax yenn saa yi nga dajeek alamine mu làkk la tubaab nga bëgg. <laughs> ne ko est que doo ko def version wala parce que day compliqué mhm. loolu yëpp c'est parce que condition yi ñuy jàngee quelquefois mhm. moom mooy xaw a jafe euh, ak yu ni mel mhm. mais en tout cas on les encourage suñuy rakk la ñu ñoom ñoo fa nekk di encourager également euh, peut-être euh, ñi yëngu ci wàll boobu nañ def le maximum vraiment sécurité yeneen mais vraiment pour étudiants yi mën a dem jàngi Euh, te politiciens yi génn université bàyyi leen ñu jàng. merci et on se retrouve demain incha allah demain incha merci Cheikh Diop demain incha allah. incha ñu def suba di jaajëfal bu baax a baax euh, Birahim Alamine ak aussi di remercier euh, le DG. Mm-hmm. ci explication yi nga xam ne indi na ko ak waxtaan bi nga xam ne sekk nañ ko moom xanaa sax fàtte tuuti rek ne bàyyi leen waa ña waa Malicounda bu ñuy kaas <laughs> ngeen di naan ay opposition lañu monsieur le maire. <laughs> ku politique nga. lu ñu wax rek lu ñu wax rek nga ne non waa opposition bi ñooy kaas ak yu demee noonu. bàyyil waa bàyyil gaa def nga fa liggéey bu am solo wax dëgg fa yàlla ñu xam. ñu xam ko mais am ñoo xam yàggul dara ñu ngi doon kaas génn nañ merci jël ko après mi ngi noonu di jaajëfal ñëpp di jox di daje suba incha allah merci Cheikh Atia léegi léegi ñu dugal Fatou Kiné ngir jeexal ak mode astuce Yamagan night. I yeah. yeah. 9h jot na ba toftal li nga xam ne moo di juróom-ñetti simili ci suba ba tey ñu ngi ànd ak yéen remercier bu baax a baax Maguette Sène mi fi euh, jóge jiite euh, kudd nekk itam maire bu Malicounda ñu loon waxtaane ak moom lu soxal wàllum njàng meeg njàngal rawatina daara ju kawe jooju di université Cheikh bu Ndakaaru toftal nañ ci itam wàllum politique ak Malicounda gi nga xam ne moom la jiite jamono ji aca Fatou Kiné fekk nañu ci plateau bi nu mu ko defee suba su ne ci njeexintal bi ñu ngi lay maa ngi lay ziar Thialla <laughs> di remercier rek euh, invité bi nga xam moom ngeen amoon tey si waa matinal bi muy mm-hmm. Maguette seen mm-hmm. euh, nekk directeur COUD mm-hmm. di remercier Birame mi fi jógee euh, Cheikh Diop di gërëm di xool ko mu jël kalamam gi sànni ko fële di ziar Lamine Senghor mbaa xàlla samay wax ci yow mooy loolu <laughs> ñoom ñaar dañuy xuloo rek mais yàlla baax <laughs>